Euh, di la nuyu ci euh, sa professionnalisme di la ci mm. féliciter à tant que jeune di nuyu internautu 5 TV Sénégal yëpp ndax xam naa ni partout dans le monde ñu ñuy seetaan kon maa ngi leen di nuyu di nuyu waa APEX bu ñu bu ma dëkk euh, pikin bi ma juddoo ak Sénégal gépp di ñaan yàlla yàlla buñ fi wax lu ñu nit ñu baax ñiy xeebee asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah merci beaucoup Kona alors dañ daal di ànd yow euh, si nga xam ne moo di actualité bi si mu gën a yaatoo ñu ngi ko daal di revisiter nag ensemble alors actualité bi li si gën a fës bokk na euh, si d'abord ak euh, attaque bi nga xam ne itam peut-être tey jii benn communauté jàpp ne na leen attaqué alors lu nu mel naka la demee woon exactement

mooy kenn ku ne respecté moroomam solon ay gis-gisam selon ngëm-ngëmam solon fu mu mënti bokk ci waaso wala lu mu mën a doon kon nag su amee ay kàddu yoo xam ne ñun ñoo ko yëkkati comme ay jaam yu xeebu li ñuy wax rek alkamali li laa mat cëru yàlla la yëkkati ay kàddu yoo xam ni ku ñu gis sax ñuy wax dangay xam ne kii kat waxewu ko woon dara ndax matagdik doomu aadama et aussi on est très jeune maanaam tollooguñu fu ñuy bañ jumee fu ñuy bañ a def erreur parce que ay xale yu ndaw lañ xëy na responsabilité bi rek moo bari su ñun. kon nag euh, képp kuy wax bis dina ñëw nga wax loo xamante ni xëy na du doon sa coobare. wala du doon lu nga xam ne mooy sa yéene te wax ji nga xam ne jóg na dem ci euh, ñi nga xam ne ñooy waa euh, maam Cheikh maam Ibrahima ñas wala waa kër euh, maam Baye Niass wala waa kër maam Serigne Serigne maam Maay Niass mu am kàddu yu ñu yëkkati yoo xam ne metti na leen donc moo tax démb bi ñu ko yëgee ci guddi gi la ñu def live parce que ñun moom rëyu ñu et aussi ay taalibe lañ te moom la ñuy mës a doon hmm. benn xolu jullit sax amuñu droit méttit ko wala ñuy wax wala ñu méttit loo ñu bëri te ba ñuy wax jàmm ak tawféex ak bëggal nit ñi moo taxoon ñu jóg. kon nag bu demee ba ay nit mer ci li ñu wax même bu dee ñun bu doon ñoo wax dëgg sax dañuy jéggalu même bu doon tooñuñu sax dañuy jéggalu parce que nit ki fu mu toll ba wax la tooñ nga ma yow da ngaa war a wàcc ne ko maa ngi jéggalu rek maanaam tooñ lu mu rëy rëy jàpp naa ni maa ngi jéggalu war na mën a saafara moo tax ma leen di wax ni maa ngi tuub di jéggalu. ndax nettali xuloo xuloo la kàddu yi duñ ko yëkkatiwaat wala di wax nii laa defoon day yokk sàgganu mais dinañu ñaan njéggal ci suñu jëmm ndax li ñu def si suñu bopp lañ ko def bu ñu fekkee lu ñaaw moo ñu taxoon a jóg wala yàq wala def lu bon si suñu bopp lay ñëw parce que kilifa gi moom fa mu nekk ma nga fa. ñoom fa ñu nekk ña nga fa suñu wax ju baax bon wala suñu wax ju baax du tax du dindi dara fi yàlla teg. xëy na ñun ñooy wàññeeku ñun ñooy loru te nag kenn bëggul lor sa bopp. kon wax ji pour expliquer ne wax ji erreur la dema ma part te matadik doomu aadama la may ñaan ñu jéggal ma. ngir jëmmi yàlla ci seen xol yooyu di metti ci man te sama décision nekkul sama xol sa xolu kenn di metti ci man kon man damay jéggalu ndax kilifa gi moom fa mu ne ma nga fa amaana sax dégguma hmm. mais euh, taalibe yi ak am di jàmm yi ba ci samay doom yoo xam ne samay doomu mag lañ ay taalibe bàyyi lañ ak sunu famille xam nga ñëpp dañoo jaxasoo donc doo comprendre que ni ba may wax yàq taxuma woon jóg hmm. mais comme nuru na ko damay jéggalu di tuub di baalu communité bi yëpp di baalu sénégalais yëpp di baalu képp kuy jullit ci lépp loo xam ne yëkkatiñ ko muy déstabiliser wala muy tàngal xoolu ku mu mën a doon surtout nag waa faydu bi maa ngi leen di baalu àq ndax damaa xëy fajar fa ma ko waxee woon tay war ma fon dem mais ahmed sax dafa na ma da ngay wote telephone nga djegal mané ko duma wote damay déplacer wu ñew ah. ma joggé entraînement ci fajar gi dem 2h tv djegalu balu ak hmm. tay tamit gis na len ñu def conférence de presse conférence de presse ma ngi len wa ma ngi len ni djegalu wat di len balu ak encore donc euh amul solo pour ndal ñewat exactement ci euh, détail exactement hmm. li nga xamni mo waral

Euh, Fouquet, Madame, euh, 10 dix ans de euh, réclusion ferme leen daal Sakou sàkku si Ousmane Sonko jógee si li nga le procureur Bakhoum alors cinq ans aussi en cas li nga de ne de corruption de jeunesse alors tout d'abord lan nga daal di par rapport ak àtte bi nga xam ne te ñu ni film pornographique il fa doon jouer exactement. Waouh, Cheikh Mohammed Al Fadal. Hmm. xaw ma kañ laa fi ñëw wala